kontaan rek vraiment kontaan xol yi yendoo neex lool comme niñ koy defee rek comme xolu chaque jour waaye tey nag dañoo am mbégte bu gën raw ñu daan am di gën am yaakaar euh, ci cheikhul khadim li dafa dafa dafa dafa yokk yaakaar yokk ngëm-ngëm yokk bëgg-bëgg wax dëgg yàlla di koy tiitaroo nag di ko tiitaroo di tiitaroo askanam wax dëgg yàlla di fier di fier ci nekk murit vraiment di kontaan bu baax a baax ci waa Touba ca kanam ci seen liggéey bu spécial nga xamante à travers le monde musuma gis wala ma deg mbooloo nga xamanteni taxaw nañ dajalo dajalo bu melni. The di def initiative yu melni jëmele ko ci seen biir askan kon euh, dañu leen ni ñaanal bu baaxa a baax di leen bëggé di leen contané bu baax euh, di leen ñaanal liggéey bi ñu sumbu suñu borom euh, yëkëti ko nak gën ko yëkëti gën ko yëkëti nak barke Cheikhul Khadim ba ñoom liñ ci bëgg lepp suñu borom may leen ko ci ñu am ci ñun ñëpp nak lu kawé suñu ndort vraiment ñun ñëpp kontaan nañ barke Cheikhul Khadim man délégation fan nga man ma jité association jigéenu Bamba ñu taxaw euh, ngir jàppale Cheikh Mountakha Bachir euh, ci liggéey université bi euh, fas yéene cee amal ab restaurant bu nga xamante ne amoon nañ ci digal ci Cheikh Mountakha pour taxawal restaurant boobu ci biir université bi voilà. ci délégation Touba ak waa association national des femmes engagées pour Serigne Bamba. Mm. jërëjëf man maa ngi tudd Khadim géey sopp na bi dëkk Touba di doomi Soxna su Gaynde Fatma waaye ñëw gi ngeen ñëw biir Cissesse neex nga um neex na umul islam bi yëpp neex na mboolem ku yaakaar Serigne Touba neex na mboolem seexi Serigne Touba yi ndax yu baax yi yéen rek yéen a ko war di wane doomu aadama yi di ko gis di si mën a roy te lu baax danga naan ko fang Touba si kanam nag si groupe WhatsApp la tàmbalee ku ñuy wax Serigne Fallou Galas Ndiaye tàmbali ko waaye booba ak léegi li Serigne bi waxoon mbiram tànk kanam rek la am tànk waaye amul tànk ginnaaw. lolu mo feñ situ Touba sa kanam bay feñ si kep ko xamanteni ne jel jël sa deureum sa ñaar deureum sa ñaar témèr di tabal ci si Touba sa kanam ñew gi ngeen fi ñew nak ñoo ngi ñaan su barkeb Serigne Touba ci Touba sa kanam sit bi Serigne Touba jëmele ko sa kanam ci khadim Rasul waye bis bi biñ ko jappé ñu cëral ci suñu yaay nak di kenn ci tolu l'islam bi waye di kenn si bir Sénégal da ajaratu momi Kebe bintu alhaji Njuga Kebe baayam El Hadj Ndiouga Kébé li mu jëf toolu Serigne Touba adduna sépp teg nañ seen bët waaye moom bi mu dikkee doon jigéen nekk ak ay doomi baayam waaye nekk ak fameem daaxool xool fa baayam tegoon tànkam bi si ummal islam bi muy mbokkum Tiwaawoon di mbokkum Touba waaye di mbokkum Sénégal foofee la teg tànkam si jëf ju baax si ay valeur si ay jikko si ay qualité moo tax Touba si kanam bi nu jàppee bis bi daal ko si cëralal ngir jàmbaaram pasteefam pas-pasam ak bëggam lu baax. kon na ko ñëpp ñaanal euh, Serigne Touba dolli ko sutura dolli ko xéewal ba li mu yéenee def lépp ajaratu moomi kebe yàlla def def ko ko ci barkab Serigne Touba moom magam ju baax ji soxna Astou Gaynde ma moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Cheikh Modou Moustapha yàlla nañ fi teew at yu bari lool nag fu ngeen tàmbalee yéen waa ZIT bi bu ëllëgee yàlla na ngeen fa fu ngeen yem yàlla na ngeen fa tàmbalee si daraja yeneen bi barke Xaadim Rasul. ci ginnaaw bi ñu santee sëñ Touba bu baax bu baax a baax di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ jërëjëf sëriñ Touba fas yéene barkeelu ci li nga xamante ne mooy xasida mi nga xam ne amuñ lu ko ëpp bala ñoo wax dara bisimilah barke borom Touba yallaahu yaa man laa ilaa xayruhu yaa man ataani duuna charrin xayruhu salli wa salli wal tubaari salmada ala lazi samatu muhammada wa alihi wa jahbi wal anbiya wa sukurtuhi muqaddamat rabbiya huwa lazi samaytu bil badhi ya man habiltu bismaka badhi yallahu ya man la ilaha khayruhu ya man adani duna dayrin khayruhu salli wa salli wal tubaari abada halal lazi taqdim minka bada jërëjëf Serigne Touba ndax dañoo amul lu ëpp xasidaam yi macha allah waaye nag liggéey Touba ci kanam moom ñun dañuy wax ne bëri ko ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem la te foog naa bu ñu seetloo at yi ko taxawal bëri na bëriwut waaye macha allah tey tey yaatu na nekk na liggéey liggéey bu taw féexe boo xamante ne kenn ku ci nekk rek boo ci nekkee di ci yëngu maanaam taw féex bi ngay gis ci liggéey bi yow da lay yéem macha allah di liggéey boo xam ne sëñ bi da teg loxoom ndax euh, bu ñu bu ñu bu ñu seetloo dëgg la ci liggéey sëñ Tuubaa bokk waaye nekk na tey tey lu yaatu loo xam ne ci jamono biñ toll amut benn soxna boo xam ne rek ku ci même ñi ci nekk nekkagul sax ñu ngi ñu ngi am yéene pour ñëw ci pour ñëw ci liggéey ndax tawfeex bi nga xamante ne mu ngi ci macha allah li li may faral di wax rek euh, ak yokkute mu ngi ci tawfeex bu sax daak mu ngi ci ndax sëriñ bi ñëwul bor ndax amut pay macha allah. tey la Cheikh Ibrahima waxoon rek ah doom fexe leen ba ñu fay wax bàyyi jëf kon jëf ji saa su nekk mooy feeñ macha allah kon day nekk euh, liggéey boo xamante ne ak yokkute moo ci nekk. waaye ak tawféex moo ci nekk macha allah te it bu ñu seetloo at yi nga xamante ne taxaw nañ ko liggéey Touba ci kanam yokkute bi mu def ci Touba yokkute bi nga xamante ne def na ko ci yoonu murit macha allah ak social yi nga xam ne mu ngi daw ci suuf kon dañuy ñaan yàlla yàlla ni ci sëriñ bi tegee loxoom yàlla na yokk macha allah sax dàkk tey di ci woo suñu mbokk soxna yi nañ ñëw ci liggéey Touba ci kanam bi nañ ci ñëw te ñu xam ne ay njëriñ kese moo ci nekk waaye yokkute kese moo ci nekk macha allah di ñaan rek. yalla nañ serigne touba defal deg ak tok ak deug deug ragal yalla gi tax njëriñu kër yomal xiyam jëri def ni khadim sambu dekk touba waye tay dama ñew ci bis bi touba ci kanam dafa deug yalla ñun gëmunu kenn ku du serigne touba ñun ñun mel serigne touba la kon buñ defé le tay ji wa touba ci kanam ñew diko defé fi sisses dañ ñew feñc ndax ñun mel serigne be touba ci kanam wax deug yalla tay nañ ci ñom ndax lii nu def ñun ku di murit rek war ngaa jàpp ci Touba ca kanam ku di taalibe gëm Serigne Touba war ngaa jàpp Touba ca kanam ndax Touba ca kanam ma dëgg yàlla ku ñëw xool ñoom preuve la wane ndax liggéey bu ñu la day jox teraanga da ngaa war a wane waaye Touba ca kanam loo leen jox tubaarkàlla macha allah di nga xam fi nga ko dugal ndax ñoom Serigne Touba rek la ñuy liggéeyal ca dëkkam bu sell bee ku dem Touba xam ne Touba ca kanam daal jàmbaar la waaye nag Serigne Abibou. mu sëriñ Fallou ñu ngi koy sant ñu koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam di ñaanal xalifa général de Mouride sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal sëriñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal soxna Astou Mbacké laa sànq léegi la may woo ndax mi ngi bitim réew waaye moom tubaarkàlla macha allah nee na xolam ak yéenam lépp tey mi ngi tey ci Touba ca kanam ndax li liggéeyam ndax boo xoolee site internet yi ñëpp tey Touba ca kanam rek la ñuy waxtaanee Touba ca kanam rek kon wax dëgg yàlla kontaan nañ sunu xol sedd na guy sëriñ ji Abdou Fatah tamit yabal na tamit ay taalibeem sëriñ Jili Abdou Fatah yabal na ay taalibeem yooyu yëpp ak sécurité beeg yëpp ñëpp ñu ñu ñëw ca bis ci Touba ca kanam sëriñ Jili Abdou Fatah ñun daal bégg nan sunu xol sedd na guy boo xoolee xam ni sëñ Bas léegi la dugg si sëñ Bas mu sëñ Abdou Khadir porte-parole de Mouride léegi la dugg si man daal sama xol tey sedd na tey Touba ca kanam sama xol sedd na guy Touba rek ca kanam li taalibe yi góorgóorlu leen Touba ca kanam Touba ca kanam nag ku ci góorgóorlu sëriñ Touba dina la fat dëkku serigne Touba fa fa Tuba biti Touba ca kanam dal man dal Touba ca kanam rek Touba ca kanam rek Touba ca kanam rek Touba ca kanam rek Touba ca kanam rek kuy talib serigne Touba war nga feeñ Touba ca kanam nak ñun talib serigne Touba lan serigne Touba gën kon bu ndafalé serigne Touba ci dekkam daram diko saytu di liggéey yoonu état neewu ca kon ñun talib serigne Touba lu am dañ ko wara di Touba ca kanam ndax ñun serigne Touba la ni waje mom la ni walé bu ñu Touba tax kon buñ ko dee liggéey ci dekkam war nañ ci feñ lu yor war nañ ko joxé moo tax ma def sama déplacement déplacement ñëw feeñ ci Touba ca kanam yéen nag ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ndax lii daal ku ko seetaan partout daal de monde ñëpp leen di seetaan ñu ngi leen di ñaanal lii gën a doon teel ab télé bu mag dërëjëf Seydina am di gërëm tam seen njiit di leen fi yebal xam ni daal fii daal ku ci feeñ doo nëbb fii Touba ca kanam ku feeñ doo nëbb man Xaadim Samb maa wax loolu Touba ca kanam bëgg naa sama xol sedd na guy maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm yàlla nañ ko teewe ay déwén yi déwén ñun daal ñu ngi sant ñëpp di sant taalibe di sant donga yi di sant tamit soxna soxna maam Issa Mbacke ahlu café soxna maam Issa tamit ñu ngi koy sant mu sëriñ Moudou Fadi xarit mu ma sëñ Massamba yabal nañ euh, taalibeem yëpp ànd ak ñoom ndax ñooy sëriñ café gi boo gisee sëriñ café gi soxna maam Issa Mbacke ahlu café la yàlla na yàlla guddalu fanam soxna maam Issa Mbacke jàmbaar la taalibum sëriñ Touba la sëriñ Touba lay waaje surtout sëriñ Touba la waaye sëriñ Touba lay waaje moom lay wallee lu xew ci diine soxna maam gis nga fa ay nitam ñuy séddale kafe gi kon daal soxna maam Issa mention spéciale di sant ñëpp di sant waa kër Serigne Touba yi fi teew yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañu ko teewaay déwén déwén Touba daal ci kanam jërëjëf. taxawaay bi moom taxawaay bu màgg la boo xam ne eh, seddu xol lool développement la boo xam ne ñu ngi ko jëm ci Touba ci kanam muy lépp loo xam ne bëgg-bëgg la Serigne Touba la nga dégg ko moom la ñuy ñaan ci xasida googu noonu wajjal ilaahi maskani Touba habat muy jumtuwaay boo jubluwaay boo xam ne la sëñ Touba doon wax ne lu ngeen def na ngeen ci def ak seen alali bopp ba yàlla dikk ndimbalam waaye bu leen soxlaal koo xam ne saa bu leen dimbalee seen ngor ak seen diine da ciy des mu mel ni ne am réew mënta ñàkk euh, ñu jiite réew ma euh, def la dëkk ca réew ma la la ñuy sàkkuteef ak seen seen bëgg-bëgg mu mel ni Touba ci kanam loolu mooy taxawaayam taxaw ci lépp loo xam ne développement la boo xam ne dafa jëm ci biir Touba te li ñu jàngal ci yoonu murit mooy la Serigne Touba woote woon ca njaareem ci ñaar fukk ak juróom-ñett ya mooy jubluwaayu Touba ci kanam muy jaayante génn ci caw ñaq ni ko Serigne Touba waxee Touba li xabdin muridin saadiqin lahu moo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati murit boo xam ne day am pas-pasu di liggéey di def ci loonu yàlla di jël aw ñaqam di joxe te nekk dëgg-dëgg taalibe ñu jël loolu lépp jagleel ko euh, dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Touba moo xam loo loo xam ne lu jëm ci way wàllu hôpital la lu jëm ci wàllu barabu jàngukaay jàngukaay la wala loo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon te kenn ku ne xam na ni fépp foo xam ne aw nit dëkk na fa rek loolu mën ta ñàkk ci seen ak dund mu mel ni ne Touba euh, bari na loo xam ne waroon na faa am te amu fa loo xam ne danañ ci xaar état euh, état war koo def kon Sëñ Touba jàngaloolu ñu tamit lépp loo xam ci ñu ngi koy def rek ñu koy def suñu mën-mënu bopp mooy jubluwaay bi nga xam ne Touba kanam am na ko muy objectif ñaari million ngi murit weer wu deewu ci nañu am euh, ñaari milliards at mi nekk ñaar fukki milliards ak ñeent ñaar fukki milliards ak ñeent yooyu ñu dajale ko xool lépp loo xam ne sëñ bi bëgg na ko Touba ñu def ko ci ndigal ka fa nekkal Serigne Touba defal ko Serigne Touba réew mi jëriñu ko Touba ci kanam kaal soxna ci gàttal mooy laaj ni ñi luñ man di ko def luñ xam mooy liggéeyal Serigne Touba ci jaam yàlla yi jërëjëf waaw ñun dañoo nekk ay ndaw rek dëkk Touba juddoo Touba yaroo Touba màgge Touba itam bon bi ñu jàngee ba pare itam bon amoon tam ñu gis itam loo xam ne manqué na Touba bi Touba ci kanam taxawalee ñu gis ne lii mën nañ ci dugal suñu loxo rek ci loolu ci lañ profité tam ne dañ cee war a jàpp pour dugal ci xam nga li naan modèle développement communautaire bu ko ñëpp defoon defoon rek ndax lépp mënul matale te Touba boo gisee euh, titre foncier wu Serigne Touba la. ndax brigade spéciale gendarmerie bu Touba Touba rek nga koy dégg ci Sénégal Touba rek mooy dëkk bi nga xam ne mën nañ fa tere sàngara mën nañ fa tere cigarette mën nañ fa tere lépp. léegi nag état Touba amul woon école euh, français benn école moo ko amoon muy école Serigne Abdou Rahmane bi nekkoon euh, ndaamaat ñu ëpp sax fa lañ jànge boo génnee dem boo amee entrée en sixième da ngay dem CM Gaynde Fatma bi nekk Mbacke boo fa jógee waaw wala sax pour mu nekkoon jafeñ-jafeñ boo xamante lu métti woon la itam ci xale yi nga xam ne bëggoon nañoo am xam-xam Touba ca kanam bu ñu ñëwee taxaw taxawaay boo xamante ne bi loo pour jëlee fi loolu nag taxawaay bi mooy. li Serigne Touba waxoon rek wàccoon ilaahi maskini Touba abat mislis mia bi jaay xeer man xabat Serigne Touba moom xamoon nañu ne kulli xaal li mu wax moom dana am benn ñu am pas-pas bokk ci ñu wala ñu yaafus bañ cee bokk waaye li Serigne Touba mébél moom dina am comme que Serigne Touba ya mébél nag dina am dañuy am pas-pas bokk ci amuñu pas-pas bañ cee bokk biñ ko créé en 2016 bi ñuy demee ci Serigne Abibou xam nga dañu nekk nag juridiquement euh, euh, Euh, association dafa war a am euh, kayit yi nga xam ne moom la war a am yëpp juridiquement nag am nañ kayit yi bi ñu demee nag ñu bi ñu ko waxee sañ ab yi mu ne amoon na projet bi yàgg na ñu étudier projet bi def ci ay ba projet bi ñu xam ne lii kat bu ñu ko defee mun na jàll ñu ne benn mur bu nekk 1000 francs par weer 1000 francs par weer boo ko déraché bi ngi nekk 35 francs par jour juróom-ñaar dërëm te li ñuy connecté woo ëpp na lool nit ñi li ñuy connecté woo ëpp na lool juróom-ñaar dërëm bi ñu ko xoolee kenn ku nekk ñëpp lañ ciy tolloo ñëpp mën ko 1000 francs par weer la 1000 francs weer li ci def ne jaayante la mooy social beeg nga xam ne dimbale nit ñi la te loolu moom yàlla moo ko dimbale yàlla moo ko digle dimbalante te nit nga li muy jaamoo yàlla ci nit ñi nga koy jaamoo yàlla bi ñu commencé nag oto mbale lañ njëkke dem ci poste de santé poste de santé sax mais am na capacité wu centre de am na capacité wu centre de santé biñ jógee li gënoon jafe bi ñu nekkee xale nga xam moom la ñu daan naxe hmm, sax boo demee ko sax lañ lañ la daan naxe mooy nit mënul tabax tali ndax tali dafa seer dafa jafe dafa jafe mais Touba ca kanam dem na ba réaliser ay tali Touba ca kanam dem na ba réaliser euh, lu mat quatre centre de santé sax laay wax ndax euh, euh, am na beneen projet bu ñuy wax naata Touba commission environnement ñoom ñoo ko yor ak comme Touba ca kanam daal mën naa ne état la ci biir état wu Sénégal ndax am na lépp am na commission sociale am na scientifique culturel nga xam ne yor ñaar njàng mi nga xam ne jëloon nañ sax sëriñ daara yi yemuñ ci sax mais dañ leen a formé juridiquement rek dañu leen a boole avocat boo xamante ni moo leen doon jàngal maanaam naka ngay ndax xale boo ko yoree comme si ni ku nekk prison. Euh, ndax barki de moo Ndiaye dama ciy jël benn kii rek comme kaw Abdou Faye ci kaso ci garde à vue la dee te xam nga garde à mooy lan mooy garde à ki ngay garde da nga ko war di xool. mais Abdou fay bu doon bi muy sang nga xam euh, ne boo duggee boo dee dugg boo nekkee en garde à vue nga dañ la dégg demagoo kaso maanaam ki lay garde dafa war di maanaam doo sakk ceinture bu dee gendarmerie maanaam mun naa ne sax de boo dee sangu dañuy tijji di la xool waa ji ndax ñaari góor ngeen amul problème Touba ca kanam nag loolu waajal na ko ba formé na sëriñ daara ne boo dee tëj da ngay def double xale yi tëj leen ak lépp ñu waajal ko ci xale yi ndax dañoo gis dëkk réew mi li ñu am problème sëriñ daara yi li ñu am problème yoon dafa bëri Touba ca kanam nag loolu lépp daal Touba ca kanam daal modèle développement communautaire la boo xam ne bu si ñëpp jàppee waxuma la Touba ca kanam def waaye bu ko Dakar defee Tëngéej def ko Tivaouane def ko Ndiassane def ko Sénégal ñoo ciy gagné mais du Touba rek ñoo ciy gagné te nag jullit moom noonu rek la ñu war a